mbër mag baa ngoog coach baa ngoog mbër ma ngoog bu moo indi ndaw combat bi jël ma ko non kii kii kii xam nga maa moom du yomb fii heure bu ñu dañuy laale waaw kii kenn mën ko woon delloo kii kay xam-xamoon lañu soxla ci moom est-ce que xam bi ah? ci biir ñi war a lekk sama avance di daw. kan la kooku kan la. sama grand bëgg nga. Ama Baldé Gris Bordeaux. kooku moom ko bëggal sama bopp. waaw kooku. Ama Baldé la Ama loolu ay détail la ay sama ñaa. waaw alxam waaw mais alhamdulilah ñaa bu ndaw nekk na bu ma déggal. nekk na rax ma déggal rax ma teg place kon donc kooku bësam dañ ciy sonn moo tax ma ñëw nii tey di ñaan yàlla yàlla may ko ndam ci barke Seydina Mohamed. da ngay conseil. lamb nag dal da cee baax lamb dal da cee baax boo dalee rek gis bunt ñàkk dal bi rek laay ragal mais bu dalee rek yàlla woon ko bay. tey poids bi ko jox mu indaale ko ci lamb ji maa ngi ko empêché ak vitesse bi. xaaral baal bi si biir di ngeen a rey booy bi waaw mais noonu la ci la bokk ci la bokk. ci la bokk ko dégg ko la de wax na Ama Ama Baldé kii ma woo